matériel bi ñëw na si heure am matériel bi si heure am la ñëwee parce que déjà comme ni mu ko waxee sànq foo gisee ndox am na yoo comme li may faral di wax ñoo yoo moom en aucun cas baaxul parce que am na yoo yoo xam ne dañuy joxe si biir am na yoo xam ne dañ lay euh, mat rek pour sonal la donc de toute façon daal nit ki war naa bëgg nekk à l'aise war nga nekk si en bon état donc nag bu ñu amee matériel bu mel nii dinañu mën a permettre. Azir agir si yooyu surtout à cette période yoo xamante ne kër yi dañoo inondé parce que foo gis ndox mu taa rek dèjà yoo yaa nga fa te nit ki aussi ndox même bu taayee même bu yoo nga fa ay doomu jangoro nga fa parce que instant ni foofu fi ndox bi taa am ay microbe amna ay virus pare bii ñuy wax virus du corona mun na faa nekk tuberculose euh, même cor choléra bagage parce que ndox bi moom mooy dafay walangaan ndox bi buy walangaan day yóbbaale déchets yu bëri donc fu muy taa lépp lu mu for si mbalit dina la ko dugg si biir kër yi salté bu nek foofu yëpp mu la indi ay doomu jangor yu melni choléra yu melni biru teung yoy yeb buñ ko ñun dañuy désinfecté désinsectiser dañ koy bolé ñaari euh, ki euh, produit yeb la fay def produit bi day ray mbóot ki ray euh, ki insecte produit bi day ray doomu jangor appareil yi moo ñu ko mëna permettre ñu mëna ko def donc nag comme limu faral di wax si ñu ko gëna soxlé ci lañ ko gëna a indilee moo monsieur ndjay vraiment merci beaucoup population yi nag dañoo nekkoon ci situation boo xam dafa xawoon a difficile trop ndax ndox mi dafa bari ndax li mu taw ci ñetti fan yooyu ñi nga xam ne ñoo yore mbiru taw nee nañu loolu la daan taw ci at mu taw ci ñetti fan. donc dëkk bi bari ndox trop quartier yëpp nekk ci biir ndox kër yu bari mënuñu liggéeyi ndax ndox mi ci la Abdoulaye Ndiaye ngal bu jóge nag daal di wax ni li ko itteel mooy coono yi nga xam ni askan wi ñu ngi koy jànkoonteel nan la mën a def pour génne leen ci boobu la sol dàllam ànd ak ñi war a àndal dugg ci biir ndox mi bi ko population yi gisee li ñuy dund dund ay jafe-jafe yépp dañoo génn di tàccu mel na ñoo xam ne ni seen problème dafa regle ca li tax ñuy am yaakaar ni seen problème dafa regle ki nga xam ne ñëw na mënoon naa bañ a ñëw ndax faluñu ko pour mu régler problème faluñu ko pour mu génne ndox faluñu ko pour mu indi courant ci benn bi benn quartier mais dafa ñëwal boppam ñëw ak ay moyens ñëw ak yéeneem bi mu waxtaanee ak population yi population yi xamal ko ne ñun benn idée rek lañ am bëgguñu ceeb bëgguñu dëwlin bëgguñu dara ndox mi ñu nekk daal lañ bëgg a génn ba ko defee nag ci guddi ga mu waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal lu yëf fukki camion yoo xam ne nii da na wax ni ñaari fan da ngeen koy nekk Tivaouane fépp fu ndox nekk ci biir dëkk bi ngeen génne ko ba fii may taxaw di wax ak yéen Tivaouane mooy première ville du Sénégal bu génn ci ndox mi ca intervention de l'État ñëwagul ki ko def nag mooy Ablaye Ndiaye Ngalgou ak mouvement ànd defar dañ ko defal population Tivaouane defal ko xadara Cheikh Seydi Hadji Malick mais defal ko aussi monsieur le président de la république parce que moom monsieur le président de la république am na yéene ci Tivaouane yéeneem boobu nag am na rakkam bu nekk Tivaouane boo xam ne ni mi ngi koy eggaleel mi ngi koy ci jàppale bu baax a baax a baax te bi ñu demee ci population yi li ñu population bi xamal aussi ca loolu am na solo mooy naam génn ndox mi ci kër yi ak mbedd yi baax na def ngeen ko ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm waaye ñun population yi comme amuñu ku ñu waxal gisuñu ku ñu waxal yéen la ñu gis yéen lañu xam ñu ne Ablaye Ndiaye Ngalandou dañoo bëgg nag léegi suñu kàddu ñu jël ko dénk la ko pour que boo demee ci président de la république nga xamal ko ni Tivaouane kat da doon dëkk boo xam ne nii at mu jot ay millions ngi doomu aadama dañu fay ñëw di fa dajee di fa gàmmu ca gàmmu yii di ñëw ci kàttanu yàlla ci nawet lay doon ca taw bii bu fekkente ni ñu ngi gàmmu muy am wax dëgg yàlla dina am lu mu sooxeel ci li ñu bëgg a def. matériel bi nag dañ koo indi parce que dañoo jàpp ni nawet. ak jàngoro ñoo ànd newet ak yo ñoo and ba tax na président Ablaye moom bëggul di jënd dara diko indi diko jox service nan ko lii jiitewule da len day wo service bi ñu ñew ñun len lu ngeen bëgg ci lañu woyé l'argent Balde ni ko Balde lan nga bëgg pour yo dootul amati Tiwaawan Balde ni li ak li ak li bu mako amé yo yoo amati Tiwaawan muy pompe motorisée yi ngeen gis muy pompe manuel électrique bii ngeen gis muy insecticide yi ngeen gis Balde moo ko laaj def commande am ñu satisfaire ko indil ko ko di yaakaar ni seen njàmbaar ñoom ak seen xarañte bu ñu ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla feebar yi dina wàññeeku Tiwaawan yooyu dinañu wàññeeku Tiwaawan parce que loolu la Tiwaawan mérito loolu la Tiwaawan yelloo. dem seet sinistre yi masawu leen vraiment bokkoom ñoom vraiment métti yi nga xam ne ñu koy dund ci loolu lañ koy jël ay mesures yu am solo wut ay camion pour ñu dugg biir Thiénaba pour pomper ndox mi yàlla def ni démarré nañ ko depuis démb tey aussi bi ñu si xëyee ñu je pense que tey incha allah ndox dootu desati ci Thiénaba donc loolu moo waral ñu def geste bi. matériel bi aussi tamit ñu andi yàlla dafa def fii ndox mi taw bari na te boo gisee ndox nit dèjà bu amee ndox mu dugg si biir kër li nga mën def mooy dimbali ko soulager ko ba ndox mi génn mais bu soo soulager aussi tamit ndox mi fu mu taa dañuy jàpp ni faral lu bari ba ay yoo daf bari. donc si loolu lañu ñu xalaatee ni aussi li jaadu mooy jàppale boo service d'hygiène dañ leen laaj lan ngeen xalaate ba leen ko jàppale di ngeen mën a fexe ba pompe dëkk bi si ndox yi jaar yëpp ñu pompe ko pour que au moins euh, mu bañ a andi benn feebar bon ñu jox ñu benn liste expression de besoin yàlla def ñu honoré honoré loolu moom la ñu andi loolu ko jébal de manière bëgg ñoom vraiment ñu dugg biir Tivaouane yëpp foofu foo xam ndox taawoon na ñu pompe ko ndax yooyu aussi bañ a